kumba wooy ndigal may saabige kumba faal nderama xoli ba booy góor faal malay woo faal may saabige kumba faal nena lees wooy nena lees wawul ku dégg di wala gis rek ni waaw gis na ma war a dégg-dégg war a xóot jàngal la ca biir du lépp lu ñëw gooy leesooy ni na lees waxul mbokku déglukatu rajo Joko FM asalaamaaleykum wa rahmatullah dal leen ak jàmm ci seen émission jàkkaarloo politique dimanche bu jot ni ñu koy defee ànd ak euh, Moussa Pouy ci waxukaay bi mm-hmm. Assane Diour fare ci xarala gi ah, tey suñu gan di koo xam ne nag ab doomu ah, Tëngéej la ah, daanaka di wuyoo ci turu Cheikh Seck moom nag euh, Cheikh Seck daanaka euh, moom nga fare jamono bi ca wetu ki nga xam ne moom moo di Ismaël Madior fal maanaam waa Benno Bokk Yaakaar ak itam li nga xam ne rawatina na di APR mom nak ci ay yëngoom ah, ci walu politique ah, taxawal ah, kurel gi nga xamne mom lañu mouvement pour l'émergence de Rufisque mairie di nak jamono bi itam ko xam Euh, dañu ko ràññee lool nag ci yeneen i yëngu lu ci mel ni wàllum Scrabble euh, tungandu teew ñuy nataal dañu koy bàyyi mu nuyoo ak mbokku euh, déglukat yi ba noppi wax ñu moom Cheikh Seck moom mooy kan asalaamaaleykum Cheikh di la wax dalal ak jàmm nga bàyyi la nga nuyoo ak mbokku déglukat yi. Ah, maaleykum salaam Moussa ñu ngi lay nuyu di la di nga me permettre ma ma ma remercier d'abord ci invitation bi. jërëjëf delloo nañ la ko. Euh, di remercier parce que je crois que c'est la troisième fois ma ñëw ci émission bi euh mam Kumba Mbeng Ndey Kumba Ndey Kumba Mbeng ñu invité na ma à deux reprises ben bi man la won seul benen bi man ak Abdourahmane Mbaye bu taru Sénégal. bon bo léegi yàgg na. donc euh, fi may ñëw ni sama kër la. Mm. donc euh, ma la ci remercier. Euh, di nuyu sa technicien bi aussi ma jàkkaarlool. Assane Diour Assane Diour di ko ziar. Ah, bu a ni yow. voilà di sama <laughs> mbokku lébu a jokkul parce que jokkul mhm. dafa dafa dafa fees sama xol. Mhm. waaw donc man doomu jokkul laa doomu jokkul la donc euh, je me réclame lébu parce que je le suis euh, parce que jokkul sama terroir la mhm. donc bu ñu jokkul rek sama sama xol day day day neex donc vais sentir la fierté jokuloise bon donc remercie remercie, je salue au passage tous les habitants de Djokoul euh, tous les habitants aussi de du département mm. parce que radio bi c'est pas une radio de la ville c'est une radio communautaire départementale nga sax ñu Pikine donc les euh, remercier ñi nga xam ne ñoo parce que radio Djoko, nekk radio, rajo bu bu am solo ci askan bi buy gindi nit ñi bu population une radio de proximité te loolu vraiment te ngi soxloon na ko heureusement bi ngeen ñëwee euh, bay seen waar donc euh, may remercier ñëpp ñi nga xamante ne bii ñoo ñoo sos euh, rajo bi te di leen ñaanal ngeen bonne continuation vraiment daal ma ngi ñuy alors tey jii nii euh, moo nekk suñu gan euh, ci sen émission jàkkaarloo politique euh, di nak Cheikh sek tay suñu doon présenter son doon tënk fi nga jaar fi jangé bo ba fi nga yegsi ci li nga yëngu présentation bi lañu ñu bëggoon nga wax ñu kan moy Cheikh sek bon brièvement je vais dire que Cheikh Seck doomu Tëngéej la doomu Jokkul ma juddoo Jokkul yaroo fa jangé école xair ñu gën ko xam ci école Moussa Diallo bima ma suma certificat suma en e sixième ma ñu affecté lycée à Sadji pour faire défé sama cursus élément secondaire bi de la 6e à la terminale donc ma suis fa euh, dem université département de géographie où j'ai fait deux ans avant que réussir à un concours d'entrée à l'école de formation des tuteurs euh, bu Kolda foofu laa sama formation euh, may ñëw di servir comme instituteur bon j'étais directeur d'école pendant longtemps euh, ba léegi le secteur de l'enseignement ba enseigné à l'école euh, Sangalkam 2 IEFU Sangalkam foofu Foufla, foofu Donc, il y donc aussi un scrabbleur <laughs> bon le scrabble aussi c'est ma ma passion c'est ma vie donc j'ai été deux fois champion du Sénégal 2014 et 2015 2016 j'étais finaliste j'ai participé à cinq Coupes d'Afrique et une Coupe du Monde. Euh, donc ça, c'est le côté du Scrabble. Je suis le président, le vice-président de la Ligue de Dakar de Scrabble et le président du district. De Arona, Arona, Arona qui, qui, qui, a, qui a fait beaucoup de choses pour mm-hmm. FISC. D'ailleurs, euh, au Congo, récemment, il était champion d'Afrique. Donc, euh, Nyugi actuellement, il est en France, de Wonama. Mm-hmm donc euh, dima maa euh, Abdoulaye koy indi euh, Sidi Sidi Ibrahima Cissé y a la bonne graine à <laughs> il y a Sidi il y a Ablaye Gueye mm. y avait aussi Ablaye Seck les gens de Mbao ah. aussi waaw hein. waa Mbao aussi ñu ngi ci ñoom ñëpp ñu ngi ñu ngi actif y a aussi Moussa Ok, Moussa Ciss bu baax ah, waaw Moussa Ciss voilà enseignant comme man donc loolu moo ñu téye parce que man j'aime aussi les lettres <laughs> donc d'ailleurs maa ngi Mangi encore une émission bu champion des mots. ah d'accord. Euh, L'Amphal TV. Oui. TV. donc ça passe tous les dimanches à 17h. donc vraiment je suis j'aime les lettres. Mm-hmm. bon donc euh, j'aime les lettres mais j'aime aussi la politique. Euh, aussi Mangi Yengoutou qui ci ci ci social mm-hmm. parce que aussi Mangi était ben ben mutuel. Mm-hmm. des enseignants pour le pèlerinage à la Mecque. Très bien. On a monté depuis deux ans. Bon, alors, Mutuel Bobou, Mugidor aussi. Euh, ñu ngi arbitre aussi de ligue. qui plus est. ligue. <laughs> bon donc euh, je formation de que salut au passage. Mhm. ne a ngi premier match que nous avons reporté. c'était un tournoi de euh, de Moussa Sambu, le leader de tout pour hein, présidé par Mabouna Massal à l'époque. terrain il Il à a ça fait 25 de ans. maag mhm. moom ñoo reportage mhm. donc quand je le vois faire un bon reportage ci ci nawetaan ak fane mm, mm. dina né vraiment ça jàmbaar la waaw que je salue au passage mon ami Alpha merci beaucoup hein donc euh, ci euh, cette euh, présentation vraiment je sais qu'elle n'est pas exhaustive parce que yëngatu yi noonu la alors li ñu mën wax tay jii nii mooy ñun ñoo gëna a parce que invité la nga ñëw li ñu jëk ci laaj moy tay lu la ci champ politique boole politique effectivement xam nga politique euh, ñu ñu ñu bëri def nañ yu jeex mais ñu bëri dañ parce que tey Assane lu la voilà donc tu bëgg-bëgg bi tay ci walu Scrabble mën na la yobbu fune vous pouvez la la latitude d'être euh, des internationaux dem nekk leneen nekk leneen pourquoi ngeen taamu politique bi nga xamné xuppante souvent un autre regard même si c'est l'art de de gérer la cité voilà euh, man nag dama bokk ci ñi def politique par devoir donc politique dang koy def mbaa def la te bu lay def doo xam fu mu la jëmee te soo koy def di nga di nga say idée ak yow say say say say bëgg-bëgg di nga xam fan nga ko mën a nga mën leen méngale. waaw nga mën leen méngale nga mën leen méngale te politique lu noble la parce que dafa am nag ñu ko yàq. ñoo xamante ne dañ ko xajamal. pour nit ñi bàyyi ñoom. te soo leen ñoom fu ñu lay jëmee xamoo fan la. mooy ñu koy dundee. waaw moo tax nag ñun ñu def politique par devoir.

Mais après le bac madame université euh, Fofo aussi j'ai continué à, militer dans, dans, dans, dans, le, MES. Donc, euh, avec euh, Dame Diop, hein, le président Dame Diop, hein, qui était président des jeunes socialistes, avec Gorisali Sali, qui, avait la session africaine à l'époque. Bon, donc, MES, maintenant que je suis à MES, 94. Après, j'ai quitté le Parti socialiste. J'ai quitté le Parti socialiste parce que Bobo aussi, bon, à mon avis,

bobu non ci Serigne Touba ak jar jar yi j'ai pleuré ce jour-là bon ben jour ma gis portrait muy wax ci affaireu ñaari rakka yi ba kéro ma créé parti man ki dina and ak mom ci politique donc ma and ak moom euh, un bon compagnonnage à l'époque c'était mon ami euh, et grand frère Boubacar Baldi qui coordonnait bon bi yalla dogalee nak mu décédé par accident mu ben benn létage yi ba bamba ji jëlaat parti bi euh, ne woomam ma ñëw mu ne ma dañ bëggoon jëlaat parti bi te tëggaat ko légui nak nga woowaat gars yi ma woowaat gars ñu def assemblée ñu fal ma nekk coordonnateur donc j'ai coordonné le FSDBJ de 2007 jusqu'à 2017 coordonné nag pendant dix ans après ma jëlee suma activités à la suite des élections locales yi nga xamante Bamba Dièye dafa ñu ci def loo xamante ne peut-être lu doy waar la. alors ñu taxaw foofu. ndaxte yaa li ñu seetlu. voilà année boobu. Mhm. 2017. sous mon, ma cool, ma fàttalikul fii ci suuf. waaw nga def euh, rencontre. bo xam mhm. quelque temps après. rencontre wu, ci nga wax ne yeen genn ngeen ci. li nga xam ne modi moo di ak euh, euh, Bamba ci fsd mhm. ne a ngi ci Benno Bokk yakar effectivement nga pousse lutax lu xewoon lo len jotté waaw xam nga. Bamba suñu référent mu ci élection locale parce que mom à Saint-Louis.

da ngay ba am ko ci bu ko comme conseil départemental bu maire bi conseil départemental conseil départemental jël maire parce que ko ci dafa am lu dafa bi malgré malgré avis euh, euh, ah. base bi il était troisième pour un maire sortant. c'est hmm. décevant parce que maire sortant bu le premier dafa le deuxième. normalement mais premier sortant il est arrivé troisième derrière Ahmed Fabraya ak ak ak ak et Fabraya ça gagné. donc a gagné donc malheureusement pour lui bon alors il a tout perdu alors maintenant il nañ ko bi mu gouvernement nañ il y ko élection dem mais demul seul mu jéem dem ci benn bokk yaakaar ñu jox ko benn député alors que ñoom Mansour Sy Mansour Sy Mansour Sy Djamil ak ñeneen ils ont eu cinq à quatre députés même même Imam Mbaye Niang am na député yu bari te Bamba à l'époque position bi ko jël au Sénégal Bamba position boobu moo ko yoroon jeunes ni ànd ak moom ñëpp bëggu ko donc mu nekkoon euh, une bonne dynamique bonne dynamique mhm. mais malheureusement la dynamique s'est cassée bon beaucoup l'ont lâché bon à Rufisque ñun wax nañ ko ñu ne ko ñu ne ko Bamba ñun dañuy ànd ak waa Benno Bokk Yaakaar parce que Benno Bokk Yaakaar gañewul benn mairie c'est le paradox à Dakar Benno Bokk Yaakaar a gagné à Pikine ak Guédiawaye mais à Rufisque Benno Bokk Yaakaar avait perdu Benno Siggil Sénégal boobu moo fi nekkoon en de 2009 en 2014 le Benno avait gagné partout sauf à Rufisque ñu ne léegi ñi fi nekk te nekkuñu Benno nañu nañu ànd ak waa Benno daan dal seen kaw ñun loolu tax ñu ànd ñoom mais malheureusement élection locale yooyu aussi Benno dafa erreur. parce que élection locale yooyu mooy élection locale yi ëpp ay candidats au Sénégal. ban erreur lañ def. mais erreur bi mooy euh, dans chaque commune d' élection locale yi passé am plus de 20 listes xoolal 20 listes ci benn commune d' bu melni Rufisque Ouest man j'ai j'ai vu des chauffeurs de taxi ñoo xamante bi duma wax sen tour fi xam nañ ñi ma ñi may diglu xam nañ li bu baax ñoo xam dañu dañu gis liste gis naa fi ño xamante bi c'était des euh des gens yo xamante déjà man man jokul xeer la dëkk jokul xeer rek amoon na Khalifa Diop jité wona liste Amadou Anta Mbengue jité wona liste euh nu tuti euh Demba sek bu Cité gamo jité amoon na listam Mbaye Badiane bu lewna na amoon na listam sans compter les les les autres listes yo xamante ne bi kenn xamul fu mais lolu te ñom ñep ñoo bokk ben adversaire moy mar na ci bëggoon jëlé mo fa nekkon mais fekkene vous avez même adversaire mais da ngeen di rassembler seen force ak Mbaye Fall aussi Mbaye Fall bi jiitu Ibadu yi. mboolee doole. man leen comme kii fi li li muy def neexu leen. Hmm. d'accord leen ci mais ànd leen na ngeen ànd dal ci kawam ngeen gañe ko mais bu leen demee ku ne demal sa bopp mais quand même mais mën leen ko gañe. la preuve yaa leen la preuve ma yeey leen parce que hmm. ni ma leen yeeyee mooy euh, ñoom ñëpp ils ont perdu devant Mar te Mar il est là depuis deux 2002. il a fait 17 ans. xam nga 17 ans record de longévité la. Mhm. depuis quoi Fall ba léegi moo fi nekk. Mhm. le même scénario moo am au nord. au nord mama ña fa nekkoon ñëpp di balbalu mama yaa gagné leen ñu demaat à l'est ña fa nekkoon di balbalu ñëpp albi gagné leen les mêmes maires ont été reconduits ba léegi ñoo fi nekkaat. et en ville. waaw en ville en ville parce que ville amul liste xam nga ville amul euh, amul amul amul amul liste euh, proportionnelle. waaw la des fële la waaw la des la ñuy les gens liste majoritaire ville parce que ville a liste majoritaire y a au niveau de commune d'arrondissement donc bi quota. Mais da nga quota mais quota bi bi parce que andi am ñaar bu ñu dal ci mamaya mamaya perdre def ñu dal ci mamaya mamaya perdre ñu andi mi nga quota. mais comme quota, c'est un nekkoon PDS ñu am un dynamisme commun mais erreur de casting là ñu andi ko jox ko maire bi ne ko kaay ñu jox la. c'est un problème sur le choix est-ce que également. Euh, derrière au-delà de aspect ñàkk a bi est-ce que du ñàkk a wóolunte ñoom mais effectivement parce que aussi fekkente bi Mar mo gagné Albé mo gagné mais ñom ñaar war waxtan ba kenn ci ñom jël ville bi mais bu fekkee kenn wolu ci sa morom ñu jëm jël un troisième larron andi ko ku gi ne tim yëgul benn conseil la am ñu jox ko ne ko kaay ju denk la beaucoup ko ko aussi mooy dénkin et revers bi derrière euh, euh, Albert dafa ñëw qui ci payé de l'autre côté également qui dit « Mar ñëw qui ci payé pour jàppale leen. waaw ba également tey li waroon revenir à la ville. Mhm. comme soutien venant de l'État. Mhm. on a l'impression que d'un côté, il y a un souci waaw xam nga euh, y a un fait qui est là on dit que il y a un maire opposant loolu nit ñi te retenir. ça reste une considération. waaw ah, loolu benn considération la dañaa du Rufisque y a un maire opposant moom la ñuy retenir dañaan Pikine ka fa nekk mu ngi ci mu ngi ci mu ngi ci mu ngi ci pouvoir bi Guédiawaye ka fa nekk mu ngi ci pouvoir bi mmh. mais Rufisque et Dakar c'est les maires opposants mmh. Khalifa Sall loolu lañ ko dañ ko tam dem. Mmh. ba pare euh, après euh, créel ko parce que Khalifa ce qu'il faisait bon c'est que c'est que tout le entre nous.

loolu mooy problème bi quoi. Mhm. xalifa bu mu ñëwee c'est le seul qui a fait une déclaration de patrimoine oui ne man lii la am. Mhm. donc waroon na def waroon na am beneen comportement. mu mhm. teg yeneen ñi. bon il a fait comme tout le monde. mais le fait de dire que man. talal say loxo blanc voilà ne man nii la am nag nagam moo tax nag yow waroo def comme ñëpp. waroo def comme ñëpp ça aussi ce sont des erreurs il faut le reconnaître aussi. bon ce sont des des erreurs bon maintenant. alors alors tey tey euh, présentement gis nañu ne euh, aujourd'hui la ville euh, en souffre. Hein, parce que la dernière fois, on a vu des sorties donc, euh, du porte-parole du maire, euh, Senya, du ouais. déjà euh, sur les, les, projets locaux, nous avons malheureusement entamé comme Defrat Italie, euh, donc euh, sur euh, Pénétranti, intérieur, malheureusement, des fois électricité bizarre pour nous l'air, des fois Est-ce que tu es c'est parce que le lep, moo que yéen ngeen ngeen nekk tey jii nii ne gis ne am na beneen beneen posture beneen politique bu ñu war a andi euh, changé donc ossature politique euh, bu bu Rufisque euh, déplacé donc se leaders yi nga xam ne presque on peut dire qu'ils ont échoué beneen nit parce que gis nañu la sa génn bi ngeen mujjee def da ngeen ne da di jàppale le ministre Ismaël Madior Fall. effectivement xam nga Ismaël Madior. je salue au passage, le ministre d'État, Ismaël monsieur professeur agrégé de droit public. di nekk euh, d'abord euh, il a été conseiller du président Macky Sall mu jóge fa ministre conseiller ko ministre de la justice ba ministre d'État Je rek le ministre d'État à la présidence de la République est lié directement ak président Macky sans intermédiaire. de sanctions non mais mais kooku mais mais loolu place mën ko gën a fort. Hmm. aujourd'hui même fi may waxee yow tey tey tey tey am na waroon nañu ci cross bi. mais après dafa am gànt président ministre d'état ak euh, ministre de la justice président Macky Sall daf ko woo. nga jógee nga jógee justice ñëw ñëw. doon ma ne xam nga foofu président daf ko woo léegi ci suba. Hmm. ne ko damala la soxla dama bëgg nga gunge ma ñu am ñu teeru ay gan xam nga ku me noonu nekk au service du président Macky Sall. Hmm. di doomu jege Macky Sall lool. ba paré nak mu am ci mom confiance mais kooku c'est un atout pour fisc quoi qu'on puisse dire atout la pour Tëngéej parce que ay ko wax sank ne ne yu bëri dafa dafa dafa bloqué dafa bloqué dans le fonctionnement parce que aussi euh buñu jappé né ñi ay opposants lañ peut-être li waroon ñëw ñewul lolu le fisc ciy gën a sonn le Rufisque mo ñu ñor Tëngéej yow xam nga les problèmes de Tëngéej y a un problème de mobilité

avec Ismaël Major, notre candidat pour la ville. Parce que un article, les gens votent plus pour un projet, pour un, programme global de, la ville que pour un projet sectoriel d'une commune d'arrondissement. Parce que... voyez, euh, bah, euh, la ville est à, cheval sur trois communes d'arrondissement. Mm-hmm. Est, ouest, nord. Ville, comme ville mo len leen ki ñi tek ci ville bi nekk war na ko koo ki ne kii ndey ju seex la njaaxaanaay la war a tëddee mu woy bañ ben parti pris actuellement Ismaël ci loolu la nek bo gisé mu am euh, trois appareils yu fonctionnels actuellement Ismaël mom il mën na mën na il peut se prévaloir d'avoir créé au moins trois coordinations bu nekk ay un coordonnateur Ismaël à l'ouest il y a un coordonnateur de Ismaïla au nord, il y a un coordonnateur d'ismaïla à l'est. Les coordonnations yoyep n'y ñu am sur le terrain lors des élections passées nous maintenir ces coordonnateurs ak ñeneen ñu ñëw ci ñu De dañu mouvement socio professionnel ay féminin ak sommes politics. ne politique mais pour Tëngéej ñoore leen ñu ne ñoom Ismaël moo leen doy ñu ñëw ànd ak moom ne ko yaay sunu candidat. sur le plan local tey jii nii Ismaïla élection yi nga xam ne moom la ñu jàll ci présidentielle c'est vrai que euh, benn bokk à APR derrière euh, ñoo gagné ak waa PS ak ñi andal àndal euh, lan moo nekkoon présence surtout je pense bien à l'est loo xam ne tey jii nii wax ni Ismaïla toj na toj na Rufisque ba mu jar bàkk bi nga koy bàkk yow mais mais euh, comment c'est au wu Je vais vous donner un exemple euh, lors de euh, la cérémonie de de remise de diplômes de remettre les diplômes là aux élèves méritants dañ un un cadeaux mais Ismaël a donné des tablettes à tous ces élèves là ils peuvent tout faire là-dedans. action sociale action sociale Ismaël en dehors même de ce qu'il fait pendant les fêtes religieuses pendant la tabaski pendant la Corée nous appuyons les gens là. di leen sur le terrain chaque chaque tous les dimanches même am ak là. population ils di là c'est là. actuellement nous sommes en train de rédiger un programme là. ne là. am un programme bu là. ville parce que parce que nous lu ñu wax waa Tëngéej fal lañu ponk yi ci gëna am doole lan la. ponk yi ci gëna am doole moy le mooy moom laa ko sax nee naa la assainissement bi. Tëngéej dafa am problème d'assainissement bu grave bu notoire. bu fi yag sax boo jógee Tëngéej fu ne la ñuy tuur fu ne la ñuy tuur te loolu war nañ ko mëna a mën war nañ ko mëna a lijjanti parce que Tëngéej dafa am particularité Tëngéej la ville est dans une cuvette ndox yëpp foofu la jëm donc ñun à notre niveau war nañ fexé ba Tëngéej problème régler problème assainissement.

te loolu ñu ngi koy rédiger ci suñu. li des ci manda wu Macky Sall bëriwul de xanaa loolu da ngeen di yaakaar ne peut-être bu élection locale ñëwee ngeen falu lay doon. waaw xam nga euh, président Macky Sall il vient de faire juste sept mois. sept mois mhm. relève sept à huit bon muy entamé huit mois sur cinq ans donc li des bëri na. bëri na des na quatre ans. que projet souvent da nga koy da nga koy da mais léegi xam nga PSE boo ko jëlee PSE. PSG dafa dem ba deux xam nga la vision du président Macky Sall c'est pas une vision. man su lay dégg kon tay Assane le troisième mandat xam nga l'artisan du deuxième mandat ñep nee nañu sa sa way la. non xam nga. Euh, wala du mom xam nga non xam nga euh, dañu la Ismaïla c'est un professeur agrégé de droit lépp luy tuuti droit xerañ na ci te man ci xelal président xam nga le dernier mot revient au président. Ismaïla de ay xalaatam la yor su président ne ko xalaat ma ci nangam moo indi ci xalaatam jox président président mooy xool li mu ci li mu ciy jël mu jël ko ci li mu ciy rejeté mu rejeté ko ci moom moom moom moom c'est un contracteur seulement parce que président bu ko ñëwee teg ci wetam ce li tax mu teg ci wetam xarañ na ci wàllu droit bu fekkee ne affaire droit mais da ci jox xalatam président. mais mom moy artisan wu. li fi jaar sénégalais yëpp maintenant donc dingat mais moom mu fexe ba. président jël ko def ko euh, euh reposoir. après lu mel nan référendum bi nga xamné ne si la ñu defee euh, donc euh, li nga xamné mom moom fi ah, mais mais xam nga xam nga xam nga bon je donne un exemple. Mhm. exemple bi ma jël bii gën a patant mooy exemple parrainage bi xam nga parrainage bi. euh Ismaël bokk ci artisan yi. mom lay wax. mais dama lay expliquer. Mhm xam le parrainage sénégalais yépp xam élection euh, élection présidentielle passée. passé les tous les sénégalais ont voté avant 18 heures parce que il fallait prendre 5 bulletins seulement vous il y avait 20 plus de 20, 25 candidats déclarés il y a 25 candidats yépp ñom ñep bulletins bulletin nek fi ngay tan 25 bulletins pour voter ci kenn benn candidat. alors que loolu permettre na leen ngeen ngeen ngeen xob bi ñenn ñi. non waaw dama lay expliquer xam nga hmm? dama lay expliquer malgré ça xoolal. nga xamante ne ils n'ont même pas eu deux pour cent ñi ay un pour cent lañ am comme ay ay ñoom ba dikkee ñi ñi am ay. tu vois non ñoo ñeen dañu gis ne même même le deuxième même le deuxième même le deuxième candidat yi ñoy gëna a par rapport même le deuxième amul amul 20 euh, pour cent euh, euh, ngeen teg le deuxième ngeen teg lu ni mel pour savoir les écarts autour de 15 donc nga xamné nga xamné lolu euh lu bax la parrainage parce que aussi les gens ont mieux voté lu bax la pour yéen non parce que permettre na len ngeen gagner mais amna na ñoo xamné derrière mais dama dama exemple xam nga déjà xam nga déjà ku mënul am hmm. Euh, li ñu soxla ci parenage bi xam ne un pour cent la un pour cent un pour cent la ñu laaj mënu ko am kooku boo demante élection da ngay sonal sa bopp donc euh, dama lay bëgg wax xamal ne la parrainage bi ñëpp xam nañ ne lu baax la parce que candidat ñi nga xamante ne bi ñoo bokkuñu woon ñi éliminé mais am na fi ñu fu ñu far dem nañ dugg ci yeneen candidature ku mel ni Gakou Idrissa Idrissa la ku mel ni Agibou Soumaré moom la àndaloon

les candidatures est-ce que également du à votre désavantage parce que est-ce que l'autre pays, donne woon constitution les 56%, 57, 58% déjà annoncé auparavant avant l'élection qui s'est faite donc sur le résultat à la finale ngeen ngeen am cinquante six pour cent xam nga xam nga euh, ñun yéen a ko def à dessin yéen da ngeen bëggoon wàññi loolu kese la woon xam nga au niveau de la paix, mhm. ñun on a la chance d'avoir un président qui connaît le terrain politique muy xam nga mooy président Macky Sall xam nga mas na wax ne si benn rajo mu ne leen man bu dee politique sëriñ daara laaj. Mm. effectivement wax na dëgg parce que son cursus moo tax mu nekk sëriñ Dara daara Abdoulaye Wade la jógee. je pense non Dara avant ça sax Macky. daara Ibader en tant que étudiant commencé na. à et cetera. agi mm. agi la commencé. Mm-hmm. te agi ñëpp xam nga ne c' est un parti formateur. absolument ñëw euh, ñëw. mais nak mais nak lu ci ëpp lu ci ci Ablaye Wade dugg ci PDS dugg ci mm. PDS nek ci cellule des cadres liggéey fa liggéey bu mucc ay ñu ñu jox ko mu Petrosen mm-hmm. mu nek fa dafa liggéey bu mucc ay mu ñu jëlé ko fa yobbu ko mu nek ministre des collectivités territoriales et de l'intérieur mu jóge fa nek premier ministre il a il a gravi les échelons mm. Ablaye wad laaj ko limu mu laaj ko li ma ko joxoon mu jox ko lepp te des ak yàlla dem liggéey ba falat bopam avec dekkal ngor boobu amul sax parti dekkal ngor ab mu re ab récépissé NP le nouveau parti de Mahmoud Saleh nouveau parti de Mahmoud Saleh ci la demee élection dekkal ngor en 2009 nek maire de Fatik, gagné Fatik, gagné Gossas avec euh, Madiagne Seck il a gagné deux deux mairies yu mag ci Sénégal étant seul te boobu parti sax reconnaître comme parti en 2009 2009 nak mu jël mu mu jël jël ay Sénégal. ak la famille Fay. waaw wër Sénégal ak ñi ko ñi ko ak la famille ñu fi mhm, les grands les ténors les barons. les ténors xamna tay les ñu and ak ñu ak ñom aussi ñom aussi ñu tam leen dembu ñu assemblée nationale ñu comme ñu ni ñoom Moustapha Cissé ak ñoom ak ñu Mbaye Ndiaye loolu derrière c'était un coup ñoo génn seen bopp ci ci ci ci ci ci ci ci PDS ñoom aussi ñu génn le mais ñu ànd ak jàggam yàlla wër Sénégal mu dem campagne mais n'oubliez pas que Macky Sall bi ñu defee Benno Bokk Benno Siggi Sénégal Macky était dans Benno Siggi Sénégal mais que maki bi mu ñëwee dafa ne. après daf fi bàyyi gars yi dugg ci. waaw mais puisque Benno Siggil Sénégal dañu ne ñoom dañuy def régime parlementaire. booba jamono gars yi ngi campagne ci wër. waaw xam nga waaw Macky xam nga Macky xam nga Macky li ma gëm li ma gën a ci moom mooy dafa gëm ay conviction xam nga bi ñu ñëwee dugg ci Benno Siggil Sénégal ñoom dañu ne dañuy prôné un régime parlementaire mu ne man d'accord ma ci régime parlementaire bi ñu régime parlementaire ñu ne waa léegi entre Moustapha legi après moom ne d'accord ma ci régime ñi ci dess ñi nga xam da ko waroon nañ ci biir moy les partis comme le PS l'AFP le PIT ak LD ñu waxtaan ba ne kon Moustapha Niass bu même bu nekkee président Moustapha Niass mom day def président président président de transition lay def day assurer une transition day demal boppam day dem transition même bu def trois ans la da ko fi def après ñu def élection mu bàyyi légui ñu ne kon nañ Moustapha Niass mu nekk président Tanor nekk à l'Assemblée parce que président de l'Assemblée dans un euh, régime parlementaire, c'est le président de l'Assemblée qui est chef du gouvernement. D'ailleurs, c'est lui qui gouverne. Moi, pour d'autres, dois le président, comme au temps de Mamoudou Dia avec Senghor. Mais dualité, parce que le président Macky Sall, il sait que c'est ce qu'il y a Le bicéphalisme, Le dualité, pour que les gens aient coup d'état, du tiers. Je ne suis d'accord avec ça. gars yi gars yi dem ba ci biir aussi ñu ñu du beau jubóo Quand ku Macky Sall euh, euh, euh, Tanor Dieng ak Moustapha Niass di à cache-cache mais finalement nous pas séparé Nous nous séparons. Nous ñu ne nous Nous ne pas. parce que benn benn si Sénégal nous avons doole Macky président Sall mais nous, avons nous, nous nous nous, ku nous, dem nous, ji Macky nous, nous nous, fu nous nous, nous nous, ne bi ñoo nous, euh, derrière le président Macky Sall bon c'est vrai que bon nous, dem assemblée nationale qui est au conseil bon ba légui nak bon c'est vrai que loolu c'est c'est l'histoire mais ni euh, ma len di euh, gëm gëremé au passage moy ils sont restés fidèles au président Macky Sall parce que ñu bari dañu yaakaaroon après les élections Benno day tass nangam nangam légui Benno c'est c'est solidifié. alors suñu dellu c'est tout ci ci Ismaïla parce que mom mo waraloon euh, cette historique. waaw dañ ko da ngeen ko bëgg def candidat donc ville. effectivement ñun suñu mouvement dafa wax né tu te rappelles yow bokk nga ci bi def conférence de presse. maa nga foon yaa nga foon. Mm-hmm. ñun bi ñu génnee ci eh, Bamba Cheikh Bamba Dièye présenté suñu démission dañu def conférence de presse au Sénégal gépp pour wax suñu position parce que politique eh, da ngay éviter ambiguïté. Mm-hmm. politique nii da ngay def lu leer ci politique. Mm-hmm. moo tax ñu bi suñu déclaration bi lañu dañu nous nous quittons dorénavant le fsd pour rejoindre l'APR le Canada Ismaël Major Fall. Nous ferons en sorte que le président hein, puisse gagner ces élections dès le premier tour. Moi, c'est objectif. Bitides, moi, accompagner Ismaël Major pour les combats futurs. Les combats futurs, nous que le président de la municipalité est mouvement la candidature ismaël Major. bon bon, que candidat ñoo buñ ko porté nak dem ci mom xamal ko ko am ñeneen ñu ñew ne ko yaw la ñeneen ñu ñëwaat ne mu ne ah kon kay man mënatuma mënatuma rester. mais tout de même mom il continue à à rester impopulaire dans Rufisque parce que les grands leaders yi ko fi jitu won def nañ sen maillage ay Souleymane Doy ay euh, ay Albé ñom Doudou Maïssa ah, ah, et cetera. Ah, encore euh, encore encore une fois. Père Omer Seye encore une fois. Mm-hmm. Ismaël il n'est pas venu pour concurrencer yi fi nekkoon dafa pour andi plus-value un apport Ismaïla amul adversaire à l'est parce qu'il n'est pas intéressé par la mer de l'est mon adversaire au nord parce qu'il n'est pas intéressé par la mer du nord mon adversaire à l'ouest parce qu'il n'est pas intéressé par la mer de. l'ouest intéressé kon. ko intéressé dans sa globalité mairie problème pour mairie ville pour régler les problèmes de Rufisque quoi. donc moom tey sa candidature ce koy poser sur les locales. ce sera pour la mairie ville. xam nga très bien te loolu. nga wax ko mu leer quoi ñep dégg ko. non sa candidature. Mhm. c' est pour la ville. d' Ismaël il n'est intéressé que par la ville. d'accord très bien maintenant. Mhm. maintenant mhm. loolu nak loolu war na mëna yomb xam nga man mëna yomb. parce que ville élection yi passé ville amuloon euh, liste majoritaire amulone liste majoritaire amulone liste proportionnelle proportionnelle bi ñu ko don déterminer sur le coefficient électorale communal. nombre de voix yi bo gisee bon euh, d'ailleurs parti ça nous yëpp élection am conseil conseil plus fort reste mairie ville conseil y a une vingtaine de partis yo ont au moins conseil ñi en plus que il est représentatif am nañ conseil yu bëri mais ñeneen ñi nga xamante ne bii comme ñu ma la waxoon ku mel ni Amadou Anta Mbengue li conseiller mosu def politique mais dafa dem ah, au moins nekk na conseiller en ville Mbaye Fall aussi nekk na conseiller en ville Mbaye Fall bi jiite Ibadu yi association des musulmans de Rufisque donc ñoom ñëpp ci fragmentation boobu fexe nañ ba nekk ci ay conseillers mais loolu ñu nekk ay conseillers en ville la moo ko waral mooy de plus forest ñu ci bëri ci lañ génnee léegi comme ville masul am liste particularité. parce que ci bi ci politique bi. réforme yi réforme yi dafa réforme mhm. maire. absolument sera élu au suffrage universel. maire bi du ay conseil ñu fi ay maire hôtel andi ban la. mais maire mais mais bi passé waa PDS. ah élection yi passé nii. non yow Assane loolu. élection yi passé bi ñuy fal ville bi ñu albé ak albé ak maar bi ñu dajale seen conseil. Mhm. kenn fanaanul sa kër. ci rajo laay waxee. ñoom ñëpp. mais Assane kon dañuy pàccoo réew ñoom ñëpp dañu dem. hôtel lañu hôtel lañu hôtel hôtel lañu dem. ñu mën a falu bu ñu bu ñu xëyee ñu ndekki ba pare. ñu mm. ñu ñu jéem leen ngeen jàpp ñi jàpp. ñu andi ka jàpp waaw pour quoi japp pour boy waji julli pour wat waw wat ne man duma wor duma trahir dina wat watel candidat PDS ñom ñep ñu imam bi ñew ñu ubi kam bi wat loolu li ngay wax ni c'est grave té amna ñu watul nak ku melni Serigne Gueye dañ du wat Serigne Gueye bu bu bu PDS sama deug Serigne Gueye xam nañu wa Serigne hmm. Serigne la di que ma duma wat mais ñi ñep dañu wat xam nga loolu pour dire que mais suñu demee ba leen waat loo mais amatuñu seen confiance. dëgg dëgg kon ñu xam ne e, élection yooyu baaxul. élection boo xam nga wàcc waat pour ñu gëm la mais bu booyee da nga fa dëgg jarul nga waat. wàccoon nañu ak la ñu loolu moo tax moo tax ne léegi. loolu wàccoon <laughs> kay mënu fi jóg parce que. Ah, waat non waat waat gi picc. non xam nga lu tax mu ah, ah. parce que élection yi ñëw. élection yi ñëw. policiers yi daal ñoom léegi. le maire le maire sera élu bi lañ jël def ko foofu xam nga ñu def seeni loox yi dañ ci dañ ciy waat waaw xam lu waral waral te ñu mm. fal seen maire ba ki ñu bëgg ba pare. Mm. conseil dajaloo ñi. c'est vrai que looloo gën. ñu jënd ñenn ñi. Mm. ñu ñu ñu watal. universel direct bi moo gën ñu watal koo xamante ne kii wuute na ak kii population yi bëggoon. yi bu ñu ne man Moussa Momadou yi ñëpp vote vote ak Moussa mais Moussa dafa war a jàll. Mm-hmm. le premier jour bi ñu woteel jour boobu la ñu war a xam ne Moussa moo nekk maire mais dañuy wote def lu ñi jour bi nga xamante ne euh, présidentiel lépp le jour même xam nañ tendance bi xam nañ ki gagné parce que radio yaa fi fii way joko Jokko joué ngeen ci un rôle déterminant avant minuit te ngi xam nañ ki gagné parce que yéen ngi wax PPV yi mu leer ci radio bi alors élection maire non la demee bala ñu bala ñu fanaan war nañ xam kan mooy futur maire. bu ñu déglu bu ñu déglu ay coup d'état pour déglu ay coup d'état yo xam dañ leen di jënd parce que yéen a hmm. conseil boo xamante ne bii euh, amul dépense nga ñu jox ko 1 million wala non millions mosu tey million mais aussi des le déterminant mooy le choix des conseillers je pense que mon gën a am importance que ñiy fal. waaw xam nga euh, choix conseiller euh, choix bi généralement. parce que da nga légui conseil boo xam yorul khalis nga jox ko un million. ce qui veut dire que yow au dem bay porter tey kaddu gi da nga waroon quelqu'un bon hamne au sax nga nek quelqu'un de nanti mais au moins nga à suffisance koo xam ne yorul na yor. gis nga corruption nag. balaa ñu lay yoree. corruption ci jikko la. ku hmm. ci am am de am na ku am lu jeex. xam ne il est corruptible à tout point de vue am ko xam amul dara mais téye ngorom parce que nu ko corrompe. gis nañu fi ay ay député yu def ay trafic. mais mais mais non non loolu ci jikko la ci jikko la ak éducation. moo tax parent yi dañu war a góorgóorlu. rafetlu loo ko de billet yooyu. kan ci euh, billet yi ñu fi doon trafiqué jiñ ko benn député. non man lépp luy njuuj njaaj. ak fu mu mën di doon fu mu mën di jege du ma ko rafetlu.

amna nit yo xamante bi dama ci cité kenn rek ku ñu wax deetu wap sek ñu nga xam nga sek ba muy falu en 2009 man mako proposer mu falu à à à l'ouest té man faluwuma parce que man man man dama demon ci parce que man man duma ma bëgg lu yomb dama dem dama dem man ak Moussa Samb ak Mbaye Fall dañu dem ci liste majoritaire raw gaddu bi ñu dem maar gañu da nga fogg ne boboy jall non du fogg mm, lan la won dama dem pour xex Hmm. je suis un combattant. comment j'étais actif dans le mouvement scolaire. donc je suis toujours un combattant un homme de terrain un homme de défiance politique pour je le fais par devoir je l'ai dit dès le départ je le fais par devoir. te booba léegi nit mënul taxaw wax ci man loo xamante day gàkkal suma der mouvement bi nga xam ne maa ko jiite am na ci ay ay kàngam yoo xamante ne bii yow gis Ñing mm-hmm. qui le président des policiers à la retraite du département ku mel ni nekk président Revas ah ñu ngi ci biir ku mel ni Ahmed Tidiane Niane ñoo xamante ne bii ñoo xamante ne bii. ma def naa jóge na sax. Euh, voyage waaw waaw jóge na voyage voilà mm-hmm. dellusi na Ahmed Tidiane Niane.

ku mel ni madame Thiam Aïssatou Diaw qui est professeur d'espagnol mu ngi ci biir mouvement bi ku ñu wax Bakou mbay qui est qui est chargé de la de la tout ce qui est presse euh, en ligne et tout ça moom ngi ci mouvement bi ku euh, ni euh, Ibrahima Diallo qui est directeur d'école à Diender mu ngi ci biir mouvement bi donc mouvement bi ñi dafa am ñoo xamante ne ñoo àndoon ak man ci FSD/BJ ñoy ñoy ñoy ñooñu ñoo ngànk mouvement bi ak gis ñun war nañ mën def un compagnonnage boo xamante ne bii ànd nawle lay doon ba ñu naxante parce que man man xeexuma pour ay positionnement ah xeexuma pour gën a jege Ismaël Madior non koy xelal xelal ko ci mu def erreur parce que erreur les erreurs politiques se paient mm-hmm. te aussi ku la reer wala ni ñuy Nous, on était là depuis 2009, on est Je vous rappelle que même, si passé, je suis à la 17e position, liste départementale. es la 13e, es la 13e place, es la 13e place, me Non, du je man, man, ma fal, ma fal. Sa jambar gi yep yep yep, di Non, xam nga ma Cheikh je nga nek dama né en 2009. Dama donner un exemple, en 2009 qui me l'a Ndiaye Sarr mën na seede ak ndem si euh, Babacar Thiandoum. Mhm. en 2009 euh, on a frisé même l'éclatement de la coalition même bi passé ah. coalition ben bokk yakar bi. Mhm. bi passé on bokkoon na ci ñi nga xamante bi ñoo ñoo sauvé. la dernière réunion qui s'est tenue c'est c'est Ousmane Samb moi président conseil ancien président conseil. Euh, régional. non ah, Ousmane Sambou d'accord AFP ok. La dernière réunion qu'on a tenue c'est Ousmane Sambou. Mhm. pour sauvegarder la coalition. ah moom tam ma koy nuyu de passé. waaw Ousmane ku baax la ku baax la keroog moo ñu këram fa la ñu ndékkee. Mhm. man Omar Gueye. xam naa ci dara ji jamono mi nekk conseiller dégg mhm. keroog on man Cheikh Seck. ah Omar Gueye. Omer Seck. Souleymane Ndoye Ousmane Sambou ak Tobi Diop. tobi benn tobi benn ñun ñun six ñoo def réunion boobu chez Ousmane Sam pour sauvegarder la coalition man su ma fekkoon ne sama xalaat amul njëriñ wala boog man euh, je suis un figurant duñ ma woo foofu ci réunion boobu. dëgg la mais réunion boobu keroog kër Ousmane la ñu ndekkee toog ci balcon bi. jàkkaarloo yow yow sa sa sa leader. waaw léegi kenn na wu. waaw léegi man kay li ma jaaxal mooy. léegi non ah, xam nga xam nga man wala peut da nga yaakaar si si Ismaïla lay lay xam nga même ci Ismaïla. Mhm. ba léegi wax déggoo ma wax ne Ismaïla

cadre yi mu yi mu créé rek kenn xamul mu toll te ñu ngi fii war a mën a ñëw liggéeyal Tëngéej mais Tëngéej dafa salte bo même boo foo tukkee sax dañu waaye seen biir bi nangam nangam dafa salte mm-hmm. Tëngéej embouteillage bi gis nga fi am c'est monstre da ngay jógee Dakar jar péage ñëw ba Tëngéej pour mën a traverser rek problème la Tëngéej assainissement bu ñu taw bu taw bi ndox mi bare nga gis fépp tout partout c'est inondé dëkk bi lóor dëkk bi ba nit ñi di ko ci Facebook réseaux mhm. sociaux fep mhm. mais loolu quand même dañ ci wara a indi mais parce que les les quoi méritent plus que ça pourtant loolu nag la ñu pourtant Ismaël Ismaïla ñëwee oui loolu loolu dina foofu laa jëmoon parce que waxu ñu waxu ñu mu ñëw nek nekk euh, un Messi un Messi non <laughs> Ismaël sera le capitaine mhm. d'une équipe d'accord bo xamantene bi moy tak brassard bi mais dañuy out ay ay militaires yu xereñ ay défenseurs yu yu yu dëgër yu hmm. am attaque bu baax ak góol bu baax. pour gagner équipe bi mat. équipe justement amone na fi déjà euh, en miniature hein, donc en fait pas pas en miniature ça c'était réel muy euh, ministre Omar Gueye département Rufisque. Ah. ministre après nga jël le euh, PCA ñom bari nañ fi donc ñom Omer etc nga jël Ismaël mu nek ministre de la justice. Ah. et cetera nga jël Souleymane Doy, mu nek député ba paré nek président conseil départemental ah. et cetera. Euh, malheureusement Rufisque on a l'impression que malgré le comme potentiel dont Ismaïla Rufisque ne profite pas donc de de du pouvoir de Macky Sall malgré son soutien et le vote référendum Rufisque Rufisque dafa wane boppam et la présidentielle bi mujj Rufisque wane bopam local il passe également sauf la mairie euh, ville li la plupart du temps mu entre les mains donc du du pouvoir euh, actuellement mais

quoi ñoo def seen c'est le choix des quoi et on doit respecter le choix des quoi mais mais mode de scrutin bi ni mu doon demee yoo xam nga ne baaxul mode de scrutin bi dama la jox exemple bi passé élection yi passé bu doon raw gàddu la xam nga man nekk maire kan Mamaya soo jëleen voix yi voix yi tëngeej yëpp mhm. voix yi ñi ñi wateel euh, ñi wateel Benno ak ñi wateel PDS ak ñi wateel Mamaya Mamaya moo leen ëpp ay voix li Mamaya am noor am ko est am ko ouest moo ëpp doole moo ëpp li ñëpp am moroom ñëpp bu doon tey ren la mooy nekk maire mais xam nga doo nekkul parce que mode de bi baaxul parce que Mamaya li mu am noor ak lu mu bëri bëri bëri bëri kenn du ko compter ci ci ci kii ci biir léegi na loolu moo tax tey moom mu gañe noor ñu sotoo ko albe ne ak parce que ñaari ñaari fu ñu àndee rek man man kenn ki ci parce que Mama ni mu faloo noonu lañ ko soo folee parce que bi mu faloo <laughs> waaw yaa ngi andiwaat histoire waaw bi mu faloo noonu lañ ko folee hmm. parce que bi mu faloo amoon na vingt trois conseils face à face à Njawar vingt trois la am Njawar am trente Njawar am hmm. trente vingt trois hmm. xam nga vingt trois bu ñu xeexee vingt trois gagné am na lu tax onze conseils yu ñu waxoon ne am na fu ñu parce que loolu parce que loolu euh, euh, Mama Yane dafa ñëw nous sommes nous nous nous nous nous nous nous nous nous nous nous nous deuxième position. mais Mamaya a gagné le Nord. Et le Nord était la partie la plus populaire de Rufusque. Qui est base, qui est ouais, également. C'est bon, base politique Ndiawar. Mais nous avons voté en masse pour Mamaya. Mamaya a fait 14 conseillers. Vous savez, fait 12 fils de Kouam. Avec 9 y a une liste proportionnelle. 14 avec 9 beaucoup de Mouignard. 23 23. Moi, 23 il y a eu 10. conseillers sur la liste proportionnelle. Mais eu 8, parce que majoritaire majorité ville la majoritaire. Donc majoritaire, Rao Gadoul, selon le poids électoral à la population. Parce que à l'ouest, c'était 8 conseillers. Au nord, c'était 14. À l'est, c'était 13. Soko Boile, Monek, 35. 35, y a la liste majoritaire. la liste majoritaire de la ville était virtuelle. C'est une liste virtuelle. Bohamed Janibi, il y a des potentiels. Donc, il y a 8 ou 8 au STI, à 13 au STI. Si 10 ans, ça fait 31. Mais malheureusement, il lui restait encore 5 conseils pour nous. Parce qu'il fallait avoir 35 plus 1. Mais malheureusement, il y a des conseils ba ci biir PDS ne des conseils qui étaient fidèles à Mbaye non da nga ne ko fi fi ko lañ ko après nga ne malheureusement ñu lañ ko mais nga ne malheureusement. ñu ko ñu ko ñu ko ñu ko la wala parce que dañ leen obligé ñu li ma cest à euh, dama ne la. Hmm. bi mu euh, les huit conseils de Benno. Hmm xam nga 23 la amoon. mu jóg 8 conseils de Benno. Mm. muy 31. Mm. ak 5 conseil euh, vision. Mm. ah. mu nekk 36. Mm-hmm. mu dem dugg ci biir parce que Mamaya ak nu mu diwaat n'oubliez pas que Mamaya. boobu amul woon reer ak ak Mbaye Jacques Mbaye Jacques. boobu amul reer ak waat non boobu même bu amee loolu Mamaya dafa moom Mbaye Jacques dañu jubóo. d'accord te Mbaye Jacques ah, y a des conseils qui lui sont fidèles. comme ni ñoom Yaxma Fall. c'est vrai ñoom ñoom Bala Balla Dieye ñoom ñëpp. ñooñu ñëpp ils ont voté pour Mamaya dañuy jógee parce que ñoom c'est député PDS ñu ngi leen madame Banane Diouf c'est des conseils PDS yoo xamante ne bii Mamère dafa xuus ci biir coalition bi sax lu bëri ñi nga xamante ne bii dañu amoon ay benn benn. ñoo xam ñoo xam ne ci biir Njawar la ñu nekkoon. waaw ah, waaw dafa leen wekki. Hmm. wekk na ci ay pion pion Njawar. Ah, ah, politique waaw waaw parce que aussi. politique yi noonu waaw loolu mooy politique. waaw parce que parce que aussi mam Mamaya quoi qu'on puisse dire ak lu ñu ko mën waxal xam ne <laughs> il a fait. il a gaynde politique la non gaynde la. Hmm. gaynde la. Hmm. man format ñoo dëkk nag format format euh, bokkuñu parti mais gaynde la parce que nit ki aussi euh, njombar loo ko compte compte compte. nopp yaa gudd na nga ko reconnaître ni na fa ak mën a daw. ak mën a daw donc moo tax bi mu bi mu bi mu kii Mama yaa aussi wàll Mama yaa ma wàlluwul kenn mais nag yóbbu hôtel fa lañ fanaan. bi ñëwee ah. ñu voté ñu voté ñu voté ko. yi noonu rek.

nee nga dafa ñëw euh, pour nek le capitaine tak brassard dans une équipe qui gagne je pense bien alors euh, est-ce que Ismaïla ci ci ci rapport parce que damay gis yenn say ay rencontre yo xamné ñom leader yi dañ fay mais des fois il n'est pas là ou il n'est pas représenté est-ce que tay euh, il est accepté comme comme leader par les autres xam nga xam nga aussi il faut il faut reconnaître une chose en dehors du fait que mu nek un homme politique un politique à risque Ismaïla a beaucoup de charges au niveau auprès du président de la République. mais Cheikh loolu dérobaat la rek non c'est un ministre d'État à la présidence de la République. Ismaïla xam nga dafa am benn affaire bu nekk xam nga le président Macky Sall dafa xarañ ci politique Bimu éliminer, éliminé éliminer le poste de premier ministre légui xam nga poste premier ministre même bu éliminer, ko éliminé liggéey bi liggéey ba nga fa ba légui mu jël kooku ñu andi ko. au à la secrétaire d'État secrétaire général ah andi ñeneen ñoo xam ne ñu xereñ ñu koy jàppale mais Ismaïla ci la bokk Ismaïla dañ koy confier ay dossier am na dossier yu bëri yoo ne bii moo koy traité au au sein de l'État yoo xamante ne bii da koy confier maintenant Ismaïla bon euh, mais le temps qu'il soit libre rek ndaje yi fi am su fekkee ne mu ngi Sénégal wala kii mais je crois que euh, day ñëw parce que c'est un leader. non, c'est un leader. Est-ce qu'il est reconnu par les autres leaders mais, mais, mais, mais reconnaissance. On a l'impression que cohabitation, bi taxuko taxuko. Ouais, wa mais xam nga xam nga nak xam nga xam nga politique hmm. politique dafa xaw fiir touti. Ay Souleymane Doy. Wa xam nga bari na ñaan gaay ay mais mais mais ñoo may sa non xam nga lolu xaw politique dafa xaw fiir touti. Ay Omer mais mais su fekkee on est raisonnable rek. Bon xam Ismaël il n'est pas venu pour prendre la place qui que ce soit. Ismaël est venu pour diriger la ville. C'est une aubaine ça, ça, devait être une aubaine pour Beno Bokoyaka. Mm. Parce que déjà, Ville Amoulon, ça, liste du passé. Parce que euh, euh, Ville Amoulon, liste. Mm-hmm. Parce que moi, de ce que j'avais changé, il y a beaucoup de retouches. Mm -hmm. le passé, 2009, on liste ville proportionnelle. Mais on a mis en proportionnel parce que man des déterminer ko nga le coefficient électoral. Mm-hmm. donc na ni ñi dem rek bu ñu paree ñu séddale. mais bien on day am liste day am liste réforme yi ñëw day am ku liste ville. waa Tëngéej dinañ xam ne bu ñu les su gagné moy nek maire té loolu dañ ko xam dès le premier jour. mais parrainage day am normalement ci choix bi. est-ce que vous pensez que. dañ wara war a mën a Ismaïla mooy li mala wax. malgré yene leader yi fi nek parce que positionnement bi bëri na. parrainage boobu sans compter les les mouvements politiques yi fi nek yo xam parrainage c'est une très bonne chose. Mhm. parce que parrainage bi dina tax les 20 candidats ñi amone bi passé dans chaque commune. d' arrondissement wàññeeku wàññeeku. Mhm. nit ñi di jo. ngeen

c'est pas c'est pas lié au régime. mais ça à dire sénégalais comme des mu hmm. même bu un des caution il faut être raisonnable. on a vu beaucoup de des gens dañ maire. maintenant un euh, caution. Hmm. du du du parrainage des am caution. ku ku maire koy jaral nga déposer ce caution dem l'image de la présidence le parrainage bi parrainage dañ ba léegi ku nekk booy parrainer yaay demal sa bopp préfecture dem parrainer sa candidat demal sa bopp. <laughs> li jëntil sa bopp parce que day yomb nga toog rek jël ay carte d'identité rek. ñëw hmm. na ko jaral mu def déplacement. pour éviter sax doublon yi ñoom. voilà doublon yi dem demal sa bopp. Hmm. ba préfecture. Hmm. ne damay parrainer Ismaïla Madior. ça risque pas d'être compliqué. non kooku moo gën moo gën day leer nañ. bu amul tukki tukki nag kii nangam nag. ku ne yaay bu ñu leen fixé caution ñu ngi ci waxtaan ci parce que dialogue politique bi lolou mo sax parce que déjà déjà ci mode de scrutin nañ rogadu ñuy nelaw buñu nous ba paré ñu xam kan parce que avec la presse tout est facile gars def seen calcul ñu xam né maire bi diw la ay conseil yu yu yu laxu ci ay ay ay ñi ñu corrompre ñi ñi ñi d'accord légui ñu xam né maire bi dañ koy fal population fal population la d'accord alors nañu gis né nous bëgg nañ ko trop politiciens mais bu Assane bañu tok ci ci yi askan bi la dernière fois wa Sénélec génn rek dañu yok ndox barki la gis SDE également parce que nous ñu ci projet euh, donc yor ndoxum Sénégal bi ñu euh, dañuy euh, di souvent ci gestion yi askan yi nga normalement ci li wolof wax ku li la fal lay waaw nan nga gisee tey yokku électricité bi ba population yi génn la dernière fois di def ay marche ñoom Guy Mari Sagna euh, ñu jàpp leen donc devant les grilles du palais. bon xam nga le problème de l'électricité au Sénégal. pour parler actualité. problème de l'électricité Sénégal ne du réglé wu tant que commencé ñu exploiter suñu pétrole ak suñu gaz. ndax na yàgg de. xamul tax xamul tax xamul tax ma xool loolu. fekk 2021 alors parce que parce que xamul tax ma loolu. xamul tax ma loolu. Mm. parce que euh, Sénégal dafa nekk boo xoolee ñun suñu suñu potentiel électrique qui est turbine gaz pour fonctionner la mhm. maîtriser plan international mhm. les les fluctuations variantes c'est mhm. mais mais on peut comparer si on compare le Sénégal par rapport aux États de la sous-région mais le courant euh, ne coûte pas trop trop cher. Hmm. bon bien que nak war nañu euh manam ñi nga xamantene bi ñoy nek ci les ménages parce que aussi courant bi buñ koy jaay ki def industriel koku tarification mo war gëna fort que nga xamantene bi day def usage ménager day mom kërëm la yor di di di di di am ay appareil am war ko doxal koku dañ ko wara wañil bamu bamu mu ba mo yoon parce que aussi état buñ ko buñ ko falee dafa war a fexe ba population yi di gis sen bop ci ci falin woowu. maanaam manam muy def ay subvention mm-hmm. pour que affaire bi xaw a ci ñom bon bien que bon loolu euh, mënu ñu def lépp c' vrai que euh, Sénégal euh, bu ñu yokkee rek ni ñu ñëw def mar gui Marius Sagna ñëw yëngal fii Pogre ils sont dans leur rôle aussi. waaw non. c'est la société c'est à dire c'est à dire même loolu sax. soo koy mm-hmm. def. Mm-hmm. xam nga aussi.

Euh, député bi. Moussa Moustapha Moussa Lo né gañ yi lepp li nga xamné modi ay deal hein ay drogue ak yunu mel té drogue bi tan yi jaxaso ci biir réew mi que né yooyu yëpp leader yi nga xamné kilifa yi ñoko yor ci ah, ci état bi lu ci ëpp ci ñom ak ñi nga xamné ñoo nekk ci lobby yi ñoo ko yore ba légui ni on a l'impression que c'est la même chose ak li feñ ak ñi nga xamné mom modi bougazeli est ce que tey jii nii yorinu réewum Sénégal ci la ñuy jeexalee gis nga né euh, ñoom ni ñu ko wara yoré ñu ngi koy yoré malgré yi fi xew xam nga xam nga moo tax loolu problème mu éducation la ak problème mu jikko gis nga gis nga dañuy wax ne euh, ñu ne muus dafa demoon màkk bi ñëwee ñu di ko jàll bi ñu ñu di ko ñu di ko ziar quoi euh, benn jinax romb rek rek mu daal di song ko song ko daal ko daal ko jàpp. parce que maninam la. Mhm. éducation jin muus mënut a muñ jinax noonu la mel ci ci éducation éducation éducation la nature une seconde nature. li ñu ko yaree mu mu nekk ci ba am soixante dix ans wala quatre vingt ans kenn mënu ko dindi ci moom loolu nag politique mënu ko dindi moo tax ngay gis ay à l' assemblée yenn seen yi eh, seen yoo xam te ne bi. ay député APR di xuloo ay député même APR ju ñaaw. APR yeneen député gis nañu eh, eh, El Hadj Diouf wax fi ay député. n'importe quoi nangam nangam. Hmm. bon yooyu yëpp warul ne parce que aussi xale yi dañu leen war a jàngal ñu leen ñun dañuy jàngale man de je suis enseignant.

dañ ko médiatiser d' accord mais jatan. les gens sont allés au-delà. waaw c'est-à-dire euh, loolu yàgg na ci daara c'est que au Sénégal dañu am ay daara traditionnel xale bi ñuy jatang dañuy bañ mu mu rëcc nekk faxamaan te bu rëcc woon nekk faxamaan dem ci. Euh, lor ñi ñi dem ci euh, ay ay plage yu les nu mu tudd ay Anse Bernard ak yooyu. gaa yi for ko daf boole ko seen réseau yi gaa yi for ko boole ko kii loolu moo gën a bon. c'est vrai au moins mu ngi sur place ñu jox ko alubaam ce que du forme jotañ bi moo metti ay fer barre de fer. xam nga loolu bu jël buum xam nga xam nga koy def. Mm. ña def mm. instant bañ koy def xamuñu sax ne am na ay loi yu koy tere. xamuñu ko parce que ils sont restés dans ñoom ñoom ci tradition boobu lañuy lañu lañu lañu lañu lañu lañu jàngee. jëf dafa ne loolu. mooy mais nag baax na ñu yee leen baax na ñu léegi nag moo tax moo tax man j'aurais préféré parce que mhm. xale sax kenn war ko kenn war ko jëtan normalement mais nag ñooñu aussi ñu yee leen mhm. ngeen di def mhm. dañu ko dañ ko interdire ñu am sax buñu même bu ñu am ay genre prison ci biir waaw kii genre ñu dugal la lekk doo nga xam nga xam nga wéet neexul kenn waaw bu boobaa xale bi dina dina dina am mercedement ah, mais cautionné wuñu ko nag ah ñeneen gisee rek ça renvoie à l'esclavage ñeneen ñi nga bi amuñu tradition boobu mais dans nos daara actuellement au moment où je parle fu may wax ak yow am xale bu ñu jotang à l'intérieur du Sénégal te kenn xamuko waaw c'est vrai parce que koo koy def. Mhm. defe naa lolu mo normal parce que mom non lañ koy yaree. Mhm. Les nag dañu fexe war a nak état bi dafa war a sensibilisation information mais aussi créer des daara modernes. tout à fait pour dimbali mhm. parce que ki nga xamanteni dafa choisir né sama dom alcorane lay jang kooku état bi daf ko war a venir en aide. mais ce qu'il faut retenir que à la coulée al daara du fi jógee.

mais ñi mu ñi mu ñi mu ñi mu ñi mu ñi mu ñi mu ñi mu produire. Mhm. Sénégal gis nañ leen ku mel ni Serigne Mboup Serigne Mboup kooki la jàngee mësul jàng mësul toog si ba nga école kooki la jàngee Serigne Mboup ba génn léegi nga xam ne ñuy jaar ci école catéchisme yi normalement war na ma xam ñoo xam ne ah. uniquement ci ay daara lañ génne tey yóbbu na yóbbu na parce que Serigne Mboup doomu Baara Mboup la mhm. papam opérateur di jaay mhm. mais Serigne Mboup dem na ba léegi day produire te day dem sax ba làkk nasaraan day ñëpp parce que alxuraan lu mu doomu daara alxuraan bopp bu mu jiitu jiitu bopp bi day baax oyof te leer parce que parce que alxuraan mm. gën alxuraan ci kaw suuf amul dëgg la alxuraan mooy lépp mooy jiitu mooy mujjee mm. donc Sénégal nag dañ ma sa xarañ ci loolu daara boobu ñuy wax tey ñu jàpp seen si leader bi daara boobu ñaata ñu fa tare alxuraan bind ko te gis lim ko bind ko te gisuñu ko bind téere waaw donc bind téere mm-hmm. te loolu amul amul amul te nee nañ gën doom ku doom bu mokkalee alxuraan mm. moo sama moom soowe nga kon loolu njàngum alxuraan waruñu ko caricaturer. Mhm. dañ ko au contraire dañ ko war a renforcer. état bi euh, accompagner comme ni ñu koy waxee les ennemis tapis dans l'ombre ñi nga am na ñoo xamante ne bi tey li ñu bëgg mooy xajamal deru Sénégal. Mhm. ben affaire bu ndaw ñu jël ko médiatiser ko. waaye nag téere bi borom ar naka ba nopi Assane. ah donc kenn mënul ko dara dañuy jëm ba sonn rek ñoom. Ah, malheureusement loolu mom loolu mom alors Cheikh tay ñu contane lool nga nekkoon suñu gan loy tagato parce que émission bi yegg nañu ci pandaw waaw euh, li may tàggatoo mooy vraiment ma di merci encore une fois de plus. waaw ñun kontaan nañu lool également ci. et nga def mi ngay ngay animer émission bo xamanteni bi dafa ñor wat Tëngéej gep wa Sénégal am ñu bari yoo xamante ne sax dëkk ñu Tëngéej ñu koy suivre. incha allah donc euh, ma la ci remercier di remercier toute l'équipe dana jokkoo waaw surtout Assane Diour ak euh, surtout le technicien Assane mm-hmm. Assane Diour ak Ahmed mm-hmm. vraiment ñu xamante ne bii euh, je les connais depuis très longtemps très bien ñu nekk fi ci radio askan wi mm-hmm. radio jokkoo nekk une radio de proximité di dem ci li ñuy dund mu koy fessel mais di ko exhiber ba nit ñi di ci taataan di ci jànge vraiment émission dîner aussi euh, mangi mangi mangi euh, mangi salut au passage euh, Oustaz won mhm, Abdoulatif Abdoulatif. macha allah muy koo xamante ne dama koy suivre. xam-xam bi yàgg te wër. waaw ku am xam-xam. Ah, ak yenen Oustaz ndjay aussi. Mm, souleyman Oustaz ndjay mhm. donc ñoom ñëpp vraiment ñu leen di suivre. Mhm. ñuy ñuy jangé ci ñoom. di taataan ci ñoom. té vraiment lolu aussi Tëngéej mënu leen fay. donc même les autorités politiques administratives dañu wara fexé ba radio bi. dund dund bu baaxa baax. subvention yi ñu gën ko yokk waxal waay waaw ah, ah oui c'est ça ah Cheikh waxal ci kaw waaw subvention ñu gën ko yokku hmm. ah yi gën baax hmm. condition de travail gën a baax hmm. parce que loolu mooy mooy devoir mooy devoir du Tëngéej parce que vous jouez un rôle ah, communautaire lañu wax de du poosu kenn ah, loolu nag aussi bu Ismaël ñëwee loolu man ma engagement bi ah non non waxal Assane loolu man nga ko engagement boobu man maa koy jël bu Ismaël ñëwee à la tête de la municipalité ñu man dinaa porter ce combat là par yéen gi yéen gi yéen rajo communautaire yi. ñun dañoo xam bu ñu la enregistré rajo Jokko ngeen gis seen bopp. ah man maa ko wax te xam nga man du ma waxantu. très bien te parce que aussi man. Euh, c'est rassurant bon man euh, lu ma lu ma lu ma wax rek. da nga ci bëgg a dellu dinaa ci bu ëllëgee bu ñu ma ko tagalee nga waxaat ko ma waxaat ko. très bien kon rajo Jokko vraiment bravo. Mhm. ma leen di gërëm di leen sant di remercier aussi les auditeurs. ñi nga xamante ne bi si suba ba léegi. ñu ngi xaar ñu ngi déglu ñu ngi déglu émission bi di émission boo xamante ne bii c'est une émission phare mm-hmm. ñooñu aussi maa ngi leen di remercier maa ngi remercier auditeurs yëpp. Mm-hmm. au passage di di di di gërëm nag euh, suma yaay. Mm-hmm. nga xamante ne bii suma papa nekku fi mais suma yaay moo ngi fi. maa ngi koy ñaanal yàlla may ko fanu gudd. ak wér gu di gërëm aussi suma soxna mhm. ah suma mhm. soxna Kumba Mbaye koo xamante ne kii aussi moom laa nekkal mhm. ah vraiment ma ma bëri ay responsabilité li may nekk kër ga sax bëriwul mais mu nekk derrière mu nekk derrière di ma jàppale nag macha allah di ma jàppale ah, ci lépp vraiment ma koy remercier di remercier sumay parents ñi nga xamante ne bii lépp lu mu dugg ñu ñu ñu jàppale ma ci sumay parents ak suma mbokk yëpp ak suma surtout waa parce que Jokkul nag man fa laa fa laa fa dëkk fa dëkk fa lépp lu mu am waaye jokkul ñoo ma ko jox. très bien donc euh, te jokkul gis ngeen ni ñu bëgg rajo bi. Hmm. ku ni euh, Yagbo grand Yagbo Ndiaye. Hmm. c'est un fidèle auditeur. Hmm. de rajo Jokkoo ku mel ni Ablaye Faye grand Ablaye Faye ah donc ñoom it c'est des c'est des fidèles auditeurs de rajo ma dama leen souvent dama leen ñuy intervenir. ah di intervenir te lu ñu wax tudd tudd rajo bi. voilà donc ñooñu aussi maa ngi leen di remercier au passage. Euh, di remercier nag suma ay benn groupe grand. ñoo xamante ne ñoo ma formé. ñoo ma formé mooy euh, le groupe des scrabble des scrabbleurs yi nekk kër Aliou Seye mm. ñoom Mass do ñoom Aliou Seye ñoo ñoo xamante ne bii ñooy sumay grand frère mm-hmm. ñoo ma formé ba teg ma ci aw yoon ba teg li très bien vraiment euh, ak waa mouvement bi aussi mm. parce que mouvement bi du ma leen bàyyi ginnaaw mouvement bi ñoo ñëw fal ma ne ma ne ma nag léegi yaa ngi sunu ginnaaw yaa ngi su yaa ngi sunu kanam donc ñooñu aussi ma leen di remercier muy mouvement mouvement pour l'émergence de Rufisque avec Ismaël Major Fall. Très bien. Waouh. Moi le mairie. mairie e M E R I le mairie. travaille pour Ismaël pour avoir la mairie. très bien alors moi je gërëm di ko sant lu bëri moom nga xam ne moom moo à euh, Cheikh à euh, di jiite wax mouvement bi di euh, mairie. Tay mo nekkoon suñu gan ci sen émission jakarlo politique yek si ci cëppaandaw gi xawna nañoo sax xaw xawa a xaabaabal tuuti waaye jaroon na ndax suñu gan tay liñ fi waxtan bëri na ci walu tëngëj ak la ca aajowoo asan jour mo nekkoon ci xarla gi Moussa puy nekkoon ci xukay bi dig dajé inshallah allah dimanche ci benen émission ak benen gan batay ci jakarlo politique jërë ngeen jëf ñu jam borom bi hem. jambaari xel koom jambaari xel koom ndigalooy waan jambaari lislaam nee na